damay buux yow. waaye ba dama mën a yow kii waaye may def ay sama émission. waaye doo ko di def doo ko di def Lamine lan la. non non yow yow yow yow yow yow. ay kii ay ay yow kuy man ngay buux. yow kuy man ngay buux. yow kuy man ngay buux. yow yow kuy man ngay buux. kuy dama gula dara sax. dama gula dara dama. waaye man dama soxla seen gàlle yi. waaye dama soxla seen gàlle yi. waaye mel na man ñeex waaye. c'est pas besoin de vous.